suñu tuddee imam suñu nijaay sëñ Mansour Diop tudd alxaji dut sàll bi di sunu mag yóbbaale nañu sëñ Moustapha yóbbaale nañ maam Ousmane ak mbooleem famille kër Sidi Xaaj Malik yëpp nuyu sunu maam yi fi teew ak sunu bàjjen yi sunu tante yi sunu jigéen yu baax ji nuyu sunu frère yi nuyu sunu jaam bu baax bii di Pape Khalifa Ndiaye ndokkeel waa asfiya yi ci bés bu màgg bii nga xam ni benn xeer bu jam ñaari picc la di bésu sëriñ Babacar si radiallahu taala bu mu bokkul ak kenn dama jóg bay génn ki ci sama kër dogale ma ni ma ñaanalal senegaal ndax mu gañe ma ne ko fii ma taxaw coupe du monde Sénégal France fi laa taxawoon sama téléphone sonné benn waay ni ma ñaanalal Sénégal ndax mu gañe ma ne ko dénk naa ko Serigne Babacar Sy ma ne ko fii ma taxaw fii nga ma ko waxe ñaataa des ci match bi mu xool ci télévision bi ni ma ñetti minute ma ne ko sëñ Babacar a gën a gaaw ñetti minute أصحاب الرسول ومدنا خليفة أهل القرى والمختار يا فقر هي فجر بنا فما يجب فما يجب لا ينال ما ينام Babacar taxaw jógal taxaw ku ci sopp sëñ Babacar jógal taxaw jógal jógal ku jug taxaw yamal xiyam doo fa taxaw doo fa ay rëy kaala rëyut mën a guddal sikkim caqal taxulaa mel ni say di mbay bu mu sàgg mbay ku ci sàggat buur yàlla xam ne kenn amu ko bu leen xuloo te bu leen nga di indi naqar maniko serigne babakar gëna gaaw ñett minute billahi wal kitabi wallahi aladim ma jàng fatiha ñetti salaatul fatiha ni ko sëriñ Babacar pour ñu yëk ni bëgg nga ci sa bés bi ñu lay defal na Sénégal gagné wallahi aladim damay daaneel sama kàddu wolbeutiku di jël sama écharpe dégg caax yi tak xale bi daw ñëw yuuxu song ma ma ni ko lu mu ni ma Sénégal dugal na ma ne ko kon gañe na moo tax bi gaa ñi yëngatoo gaa ñi jóg ma ni dëgg la parce que yonent bi laysa bi karimin man lam yuhishu zikrul habib képp ku ñu tudd sa waay te yënguwoo rek teddoo moo tax waa ji daf ma waxoon ni ma bala ngaa xam ni Serigne Babacar wàllu yu dëgg la ma nga ca góor yàlla ya ma ne ko waaw mu ni ma yëg nga ni buy sol grand mbubbam ba grand mbubb bi fël mbaxane mi ma ne ko waaw mu ni ma mbaxane mi bu jàngaloo sax day dellu si waat masula defar mbaxane moom Serigne Babacar yéen may dégg wala déet ma ni bu solee mbaxaneem di sol grand bu bam wala mu koy summi ma ni bu koy summi mbaxane mi bu jengee sax dana dellu soir xam na fi muy tegu nitu yàlla yi ci mbaxane lañ leen di xàmmee ci bopp maa ngi koy nettali dafa am benn waay bu ma wax ni ma bala ngaa xam ni sëriñ Babacar bokk ci ma ni ko waaw mu ni ma dangay xool bépp sëriñ boo gis muy sol mbaxane ma ni ko mu ni ma mbaxane mi def nii ma ne ko mu boo koy tëggal muy fecc ma ni ko nga ni mu ni ma bu melee nii nag ay waxam wóorul lu mu la wax xoolaat ko ma ni ko waaw mu ni ma waaye su defee nii ma ni ko waaw mu ne ma lu mu jekku mu dem ma ne ko lu tax mu ni ma mbaxane dafay mel ni bu sëriñ Babacar ci digg boppam tekk degg moom la Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour di wax ne listiqaama boo ko bëggee xam demal ci sëriñ Babacar si listiqaama ma ne ko lan mooy listiqaama mu ni ma borom listiqaama du ratal du xalab du gësam du xayli dafay ñor tàbbi mu mel ni kooku la ñu tàntal ci réew bii su fekkee fulla rek ngay wut ci sëriñ boo yemee ci sëriñ Babacar Sy di nga teral bu fekkee ngor rek ngay wut ci sëriñ boo yemee ci sëriñ Babacar di nga teral bu fekkee dëggu ngay wut ci sëriñ boo yemee ci sëriñ Babacar di nga teral diine ju raxul dara boo yemee ci sëriñ Babacar di nga teral jekk damay wax ni moo dàqoon na sañse gënoon na civilisé dàq gën a rafet te buy dox du sigi di gis ñëpp te kenn du ko gis sëñ Babacar si waaw borom bonekaare bu rafet bii ak sacré yàlla bu jekk bii xoolal ñax-ñax yi ci sikkim bi maa ni Sénégal bërki démb jamono yële damay jékki-jékki ma ni xam nga Sénégal seen phénomène dañuy jékki-jékki rek génn benn benn baat dafa am jamono koo dajal mu naan la diwoo ko yor diwoo ko yor diwoo ko yor koo nuyu rek mu tàpp la ni la yaa ko yor xam nga yàlla kenn du jëflanteeg moom ci loolu yaa ko yor mu téye yëfam di xaar yëf yi dëgër jëkkër amatul gaa yi fëggatuñu buntu jigéen ñi passeport yi visa dootuñ ko ci xaalis amul dëkk bi wow koggu làmp yi fay yëf yi ñàkk mu naan dëkk bi dëkk bi parce que dañ koo jiñ ku ko yorul liñ ko doon jiñ kenn yoru ko ci waaye doomu aadama bu jaaxlee dootul xam fu mu jëm dootul xam lu muy wax xam nga ban phénomène la ñu génnewaat bi ñu jaaxlee mooy loolu koo dajeel mu la mooy loolu parce que xamatu xamatuñ lu ñuy wax moo ko yor la doon wax dem nañ ba xam ni kañ ko diñ ju yoru ko léegi koo xam la mooy loolu de ma ni moo gën a wóor nag ñu ngi ndokkeel sëriñ Moustapha ci bésam bii di ko ñaanal yàlla yàlla na ko ci yàlla defal ndam bu ëpp lu mu ci masa am di ñaanal waa asfiya yi di ñaanal pap xalifa mii ci xadara maamam bii dafa nuyu sa mbàppa ci gàmm gi mu ni ko naka daara ja mu ni ko ma nga fa mu ni ko waxoon naa la ni la lépp looy wut boo ko amewul ci sa daara yi maam ji doo ko amee fenn sa richesse sa koom-koom mi ngi ci daara ji ci xadara bi kon ñi ngi ñaan yàlla yal yàlla jàppale ko di ñaan yàlla ku fi ñëw yàlla yàlla faj sa aajo sëriñ bi fii ñi nga fi gis ñépp koo ci gis ba ci man li nga yanu li nga yanu wallahi bu ñu ko doon diri fii xaju fi waaye ci seen barke ak seen barke maam dama xool léegi photo bii tubaab bii di fóon Serigne Babacar Sy muy Vincent Auriol 1951 la takkal garaat bii Serigne Babacar Sy légion d'honneur waaw sam papa ngi naan keroog ba ñu génnee ci yëfe dama dugg rek nee na Serigne Aline Gueye ni ko yéen ana seen xare xay yéen a fi daan dàqa way tey ñu dappal seen bay garat ngeen toog di nopp nee na maa ngi sat sama xalime waaw naan ko inna allati sayidi xulitta min karamin qarrat biha ayunu ahbabi kal baradi awlaakaha daxwatan góor nóoru mumtasilan li isni président jaran bila fanadi waaw muy daaliye bu mag waaw keroog booba la ko la ko gouverneur naan ko eh, France taxaw nañu wax ni naa la laaj loo bëgg ñu defal la ko mu ni li ma bëgg Seydi Hadj Malick ko am France amu ko mu ni ko ci jataay bii la wax mu ni ko jataay bii li ma fi bëgg mooy ngeen teel maa yeewi parce que tàkkusaan a ngi jot te bu yàlla wootee ma fàtte leen kon ci barkeem yàlla na yàlla faj aajo yëpp am sëriñ bu mel ni sëriñ Babacar Sy xam nga borom ibnu ashir ma nga naan yasxabu cheikhan aarif masalik yaqiihi fi tariqihi lmahalik yuusilu labda ila mawlaahu bare na waaye mënul paase am sëriñ bu mel ni sëriñ Babacar Si muy sa model di sa royuwaay mu bàyyi fi juróom yii mu fi bàyyi di sunu diine sunu tariq sunu daayira sunu mécc sunu yoonu teewaan def ni loxoom yi tedd yi moom sëriñ Babacar Si ni xaw ma ci dara de waaye ku ci sax dugg naa man Babacar ni ëllëg di gis Malick te ku ma ni da gis Malick war nga ko gëm ku ma ni doo gis Malick war ngaa jàq ndax ka nga wóolu ka mu wóolu mooma te man la Malick wóolu kon noo ngi dénk sunu bopp di leen ko dénk di leen fàttali di leen fàttali sunu bopp di ko fàttali suñu bopp moo di nit soo koy roy danga koy roy ci lépp bés bi jot ngeen sañ sa ñëw fees dell ci tànt bi ngir yàlla ak sëriñ Babacar si muuru defaru màggal bés li dem mu yem fa baaxul nit dafay niru ko mu am nañu niru sëriñ Babacar ci sunu jëmm ak ci sunu roox nañ ko niru ci suñu jëmm fexe ba fu ñu toll muy feeñ ci sunu yaram ba ku ñu gis xam ni kii njabootu sëriñ Babacar la njabootu sëriñ Babacar bañ koy wax nag du ko sant si rek moo tax wala ka ca soqi ko ndax sëriñ Babacar dafa waxoon ni ëtt bii ëttu yàlla la sant Seydi Hadj Malick ko waxoon moo ni sama kër gi santul si yàlla la sant ku yàlla ñor rek ci nga bokk sëriñ Babacar si toog ca Tiwaawan sëriñ Aline géy sëriñ Chaybatu mag ñi baax ñi ñëw seet ku ñëw ni ko dañoo jaaxle mu ni lu xew mu ni ko si sa baay dafa dem ñu wéet dëgg la yaa ngi ñuy wéttali waaye dañoo tiit lu leen tax a tiit mu ni ko dañoo xamul nii ñu jëflanteeg yow di toog ak yow nii daan ko toog ak sa baay ey Babacar ndax bu ëllëgee dinañ ko defat xam nga lu ko sëñ Babacar wax daf ni ko allin yëguloo ni catholique yi nekk Tiwaawoon ñu suul leen fii ba léegi kenn laajagu leen dara ngir rus Alaaji Malick waaw Seydi Hadj Malick benn yéeféer bu tëdd Tiwaawan benn malaaka dumawu la laaju la xamul ci loo nekk ak loo ma sa def ngir rus Seydi Hajj Malik kon jullit du mat a wax li ñuy gëmee sëñ Babacar topp ko nag mooy diine ji dañ ko bàyyi xel réew mi toj na po bare na dëkk bi yàqu na jikko yi yàqu na waaye bu ñu ci bokkee ca ña koy defar mën na am yàqu-yàqu ya inna alxasanaati yudhibna sayiaati lay doon kon yàlla nañu yàlla defal sutura defal leen ko noo ngi jéggalu sëñ Moustapha lu mel nii dafa xew ca caaro yi euh, sëriñ bi waxoon ni nañu fa dem yéwénal la leen ko ñëw fii bokk ak yéen bés bi xam ni lu ngeen nekk noo nga ca biir waxuma sax daayira bi waaye Pape xalifa mii dafay sunu rakk di sunu xarit ñun ñëpp jàppewuñu mbokk ta sëriñ la jàpp ku mu gis ci yow boo ko magee bu la magee bu lay nuyu da yëg ni taalibe bu mat sëkk moo lay nuyu kon kii rek jar na lu mu dugg ñu dugg ci ak moom rawatina nag sama jarbaat bi nga xam ni moo jàkkaarlu yéen nar def waxtaan wi muy Mouhamadul Moustapha di sama jarbaat di sama rakk di sama xarit dama koy wax ni ko yow Seydi xaaj Malick boole wuñu bu doon ak alaaj Malick itam maag yow ca Abdoulaye Cheikh ak Tabara Cheikh foofu dañ fa bokk ñaari maam yu bokk ndey ak baay muy sama xarit di sama lépp kon nu ngi ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm yal na yàlla def barke yal yàlla wutuñu ci yéen fayal nu leen mbooleem ku ci def ki tax nga def ko gis na ko muy sëriñ Babacar yàlla na la wuutu fayal la boppam tabaarakallaahu lii rek lañ ci doon sànni ñi ngi ziar di jéggalu di ñaan yàlla yàlla ñu fi dajawaat ay at way jur yi fekke ko kenn bañ ko wuute ilal abad insha allah